asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata fukki fan ak ñaar ci weeru tabaski ci atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak ñaar ci weeru juillet ci atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan ñaar bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci talaata ji rafet na talaata ju nekk nag dees cee tira tira ak wàccante ko ku ca watu wala ko ca ñaw wala ko ca daloo ñaanuk bis bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na deeful dindi yërmande ndere ci aji texeet yi bi abu daawud moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tunzaau illa min shaqi rawahu abu daawud waxtu julli suba waxtam dana tàbbi juróomi waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñett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 di soo juróom-ñaari waxtu tegal fanweeri simili ak juróom benn yàlla na lu yàlla nangul te nangul leen amin